Euh, ñoom ñëpp kenn cour du am est-ce que vous trouvez que yéen da ngeen égoïste bon euh, vous pouvez penser bu fekkee ni da nga jël mbir mi xoolee ko ci benn pàcc parce que tey jii nii euh, dañuy wax ne dañoo am éducation ministre de l'éducation nationale am ministre de l'enseignement supérieur mais c'est étroitement lié xam nga lu tax ñun tey jii nii pour université Cheikh Anta Diop Dakar wala yeneen université yi recevoir des étudiants recevoir des nouveaux bacheliers il faut que ñun ñu jàll beneen classe te tey jii nii ñun li ñu gis muy ñëw mooy ci anne invalide wala ci année blanche lañ jëm parce que ñii calendrier politique lañ topp pour mën a tijjiwaat université après les élections parce que am na lu ñuy tiit am na lu ñuy ragal. mais lan moo leen si wóor les élections. waaw mais tey jii nii mënuñoo toog mënuñoo toog pendant 4 mois 23 jours ñu leen di topp pour des réformes wala li ñu war a def yëpp ñu def ko defuñu ko. ba tey jii am lu leen rëcc ci conseil académique bi parce que y a des personnes yoo xam ne ils sont apolitiques dans le conseil académique di défendre pour la réouverture de l'université ñooñu décidé ne nañ tijji université dans le meilleur délai ñuy soog a woote naan dañoo soxla délai pour mën a defar pendant 4 mois 23 jours yooyu lu ñu doon def te c'est très bien réfléchi tey jii nii le 20 octobre lañ def conseil d'administration boo ci yokkee 60 jours day tolleeg le 20 décembre le 19 décembre la feeti normalement on revient au mois de janvier ñoom ñëpp kenn du fi nekk te minimum la ñu wax on nous a pas dit un délai maximum un délai minimum de 60 jours. loolu li ñu ci gis mooy. mais dañu wax ne balaa le 31 décembre dinañ jéem a trouver les solutions pour que mu tijji. non non tey jii nii. man gis naa seen communiqué bi ah bon. dañu ci dañu ci nax lu bari quoi pour en revenir au fait maanaam c'est pas de l'égoïsme. ñun li ñu bëgg c'est pas de l'égoïsme mais c'est juste pour. alerter mais le doo leen jàng mais ñeneen duñ jàng pour mën bon pardonnez-moi mais waaw bu la neexee ku nekk ak sa analyse mais je vous dis maanaam ñoom ñun on veut prévenir parce que ñun suñu année bu invalidé UCAD nouveau bachelier yi ñu orienté fa la ñëm est-ce que xam nga ni université bi ñu orienté euh, mooy booy am bac daaw ak booy am bac ren ñoo tolloo niveau ñooñu ñu ngi zéro crédit. si majeure partie établissement UCAD yi à part les écoles et instituts ñoo ñu ngi zéro crédit maanaam ki amoon bac daaw def na université un an état ba mu tolloon la toll. deful examen deful dara.